amul benn activité Sarsara bu ñu def ci Sénégal lu dul ni dañ ko koy wax yàlla dogal mu nekk ci activité tàmbale ko ci assemblée général ci from bi ñu def Masalikul Jinaan ci wàccaayu Sarsara waaye xam ngeen ni moom du toog kon loolu maa ngi waxaat ni ñu ngi lancé waat appel boobu incha allah soxna si bu ñu delloo rek yaakaar naa ni am na tukki bu sore bu ñu war a daje man ak moom buñ ci jigee bu soobee yàlla bu ñu commencé waat moom lañ bëgg mu ubbil ñu liggéey bi ñu doxati jëm déwén. ñu ci nuyoo bu gën a sell di ko boole ak ab siyaar di ko teg ci loxob suñu waajur weetoog di suñu kilifa muy Serigne Sidi ibnu Cheikh Mouhamadal Mourtada di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko fii ko bàyyam bu baax ba tegoon Cheikh Mouhamadul Mourtada mu nekkal fi maamam Serigne Touba te nekkin wi lépp rafet comme ni ko mbokki taalibe yi di waxe léegi jikkoom tax na lépp lu mu bëgg fii mu nekk euh, noonu mu ko bëggee la koy amee mbokki taalibe yi ci ci ci jub ak li maamam bëgg la la nekk ci la tegu ci la leen teg te ci la leen di soññ ci la leen woo kon moom fii mu nekk bu maamam dellu si woon du soppi ab toogaayam te bàyyam bu baax ba di Cheikh Mouhamadul Mourtada ma nga xam ne fépp sëriñ Serigne Touba masa teg tànkam ak fi mu ko tegul sax taxawal na ko fa kër ngir dundal fa sëriñ bi rek ndax sëñ bi moom dafa war a wër fépp. ginnaaw bu nuyoo ba pare ñuy nuyu suñu mbokk yi fi teew jóge Daaru Muxti ku ne xam na ne leen bis bi ñu ngi ko darajaale borom Daaru Muxti ñoom it mu rëy ci ñoom lool comme ni ñu ko waxee léegi borom Daaru ak Serigne Touba moom. buñ doon wax seeni mbir fi la ñuy fanaan ñoom it am ci kontaante bu baax ci délégation bu mag bi ñu fi ñëwee bu ñu paree di nuyu soxna maam Isa ak mboolem ñi mu ànd di nuyu ba tey soxna moom Moomi Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadul Mourtada ma nga ne toog ñoo ànd ak mboolem délégation yi ñu àndal xam naa du aaja ñuy lim ndax waxtu wi dafa xaw a xat xanaa di yokk soññ mbokki taalibe yi ñu àndal ak soññaat suñu bopp di leen wax ki ñu àndal mooy kan mooy Serigne Touba ndax ku ne xam na ne yoon wi moom metti na lool bañ tàmbali ba ñu jógee euh, Touba ba di ñu agsee Mauritanie metti lool la def ci ñun te ci ay oto lañuy war di ñëw waaye ku ne yëg nga coono bu metti di ngay ñëw te xam naa ne li ci des boo xefee moo gën a metti muy dem Sarsara waaye lépp siyaara ji Sëriñ Tuubaa ndax moo ne woon inna lazina ila sarsaara xat xasado ziyaarati faaraxoo daari ne aw saara te siyaara sëriñ bi mi ngi wax ne dafa nekk lu am solo ndax mi ngi wax ne surtout man tuxibba wa in satat bika daaru wa xaalu min dunihi shahrun waaw xaalu laa yamaannaka bu'du min as-siyaadati innal muhibba liman yahwaahu sawaaru nee na dee leen jéggat di siyaar donte da ngeen di dox ci ay jànj wala ay montagne maanaam ay xeer Euh, li ngeen di dox ni muy soree loolu mooy firndeel ne li ngeen di wuti da ngeen koo bëgg te ku ne xam na ne lii pas-pas la ndax Sarsara moom ñëw fi yombut euh, ñuy soññewaat bu baax di wax mbokki taalibe yi ne leen Serigne Touba li mu am suñu borom moo ko ko jox ma ko ko sax nag dafa waxaaleeg moom ci njëg ba mu jar mu jënd euh, mu woo mbokki taalibe yi ngir ñu jariñ ndax sëriñ bi ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente mënta wàcc waaye sëriñ Tuubaa kenn mënta xam lu mu doon ginnaaw yonente bi nag menn moom la ñuy dégg mu ne suñu borom moo ne ma sëriñ Tuubaa moo wax ne amara bi an usharriha linaasi bi annani malazun wa mabxasun wahima suñu ma wax ne ma naa wax nit ñi ne leen wéeruwaay laa làquwaay laa kaaraange la mu ne fa man araada xayran fii kiltay ni daaree ni képp ku bëgg a mucc àdduna ak àllaaxira fal yalus bii na nga wéeru si ci man man Ahmad kon alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne wéeru nañ ci sëriñ Tuubaa muy muccug àdduna ak góob alaxira muy muy wax bis ne di di di di di di di ñaax nit ñi rek di leen wax fi mu nekk moom ni ko suñ borom def ñuy moytu di ko dendale ak dara wala di ko tëkkale ak dara ndax te di ko kennal bu wér daal ndax Serigne Touba ak sax dafa araam mu ngi wax ne ajrul lazi nasa ani walam yatub saqaawatan tadumu fi ummil kutub képp ku may tudd di ma tëkkale ak góor soo ko tuubut soo dee sab yool mooy taxee duñu bind ci nayite ci ndayiteere yi te diine du ko far kon nañu moytu digu di tudd Serigne Touba ak tàngam dafa araam li muy muy nett li ne am na mi ngi wax ne dalaani yàlla xalaa muhammadin wa xaadali muhammadin sama di nee na suñu boroom moo ma tegtal yonent bi moo ma tegtal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma dem ci yonent bi ba suñu borom tegtal ma boppam mu ànd ak yonent bi ñëw ci sëriñ Touba ba ñëw ci tabaaraka wa taala nee na bi mu ñëwee ci suñu borom suñu borom ne ko maa tegtaloon jol màkk ànd ñëw fii ci man lépp lu mu doon jox nag jeexal na ko man mi maa dul jeexal ma maa xindakum yan fadu ma xindalaahil baaxi waxal li nga bëgg ma defal la ko Serigne Touba ne ko waaye suñu borom ne ko. bala ma laa defal loolu nag tagg yi nga doon tagg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak woy yi nga ko doon woy da ngay waññaat bi sa xalifa ci sa xalima ci man jëmale ko ci man te tagg bii nga may tagg bul ci boole yonent bi bul ci boole saxaaba yi bul ci boole kenn ku ma jege ci ci ci ñi muy liggéey loolu daal eh, xam nga ab géwél sax boo nekkoon tagg ma bul tudd sama ndey bul tudd sama baay lu xaw a jafe lay doon waaye Sëriñ Tuubaa ak a dégg ndee lim a wax suñu borom inna sal wal xulaa yaa màgg wal jalaal yaa kawe malikal mulk yaay buuru buur yi suñ xudaa yaay borom jub wal kamaal yow rek a man suñu borom ne ko lu ma waxal li nga bëgg ma defal la ko sëriñ Tuubaa ne ko maa nga si ni ak bunti barke yi laa bëgg nga jël caabi yi jox ma bëggatuma yegg ci benn buntu di fëgg suñu boroom jël caabi yooyu teg ci loxob Seexul Xadiim sëriñ bi wax ne jawatu naa si jéggi naa nit ñi wa fii ay dinaas ak li ci loxoy nit ñi fala maa bi ma demee ilaa rabbi naas ci yàllaay nit ñi xataa yan faw naa suñ borom fayal na ma nit ñi wa kafaa yadru naas te mu fegal ma lori doomu aadama te lii leeral na ko ndax bi ñu koy indi fii ci Mauritanie naar yi dañoo ko sonal ba euh, tubaab yi nga xam ne doon nañ ko sonal bi ñu demee ba amuñu pexe dañ ne nañ ko yóbbu gànnaar suñu ko fa yóbbu am na ñu fa nekk ñoo xam ne ñoo ko ëpp martaba ci suñu borom danañ wëlbatiku topp ci seen ginnaaw te dootu ko sañ a bañ ñu jëlee ko Mauritanie ñu jëlee ko Sénégal indi si ko Mauritanie te sëñ bi li muy wax rek illaa yaqaadalaaxuma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkin ni suñ borom may na ma lu mas sa may mbindeef te dootu ko may mbindeef walaa yawmi din saman loolu moo am ndax bi ñu ko indee fii ñi nga xam ne ñoom lañ doon xalaat ñoom ñoo ko topp ci ñoom ñu topp ci sëriñ bi ndax may yi ko suñ borom may ñoom ñi yori may xam nañ ne li sëñ bi nekkul ci kenn kon nag ñuy soññu yi di leen wax ne Serigne Touba moom mm, liggéeyal ko liggéeyal suñu bopp la